ci ci xeeg maam ci xarañam eh, néegi woonu dara dana ko daal di dana ko dana daal di natt maag ak <laughs> suñu Cheikh ndax dafa jël li ko gisee dafa mel ne dafa dafa ñaari fitin ak tànk fa ab duwal akub tànk teg eh, maanaam seetlu na nekk na ko na na maanaam na ko na <laughs> na nañ ko jël maanaam waaye rek da koo teg nii teg ne ko ne jël lenn maa ngi suñu kenn nangu cee jël li li gën a tuuti xam nga duumul bi ak tànk bi <laughs> moom yaar la léeg ñett la ñaari fifteen ak tànk <laughs> kenn suñu sax nangu wula jël duumul bi tànk bi nangu ma jël foofa rek laa ci sax xamatu ma foofu nu fu mujj loolu <laughs> loolu rek laa fàttaliku si eh, moom waaye ni ma ko waxee rek moom eh, eh, yàlla ma ko bëggloo te muy ku mot a bëgg dëgg la sëriñ bi moom ñëpp ay karaamaat lañu karaama sëriñ bi rek lañu waaye Cheikh Moustapha kon moo mën a moo moo moo moo man daa wax ne kon moo jëkk a feeñal karaama gi ñëpp ay karaama karaama sëriñ bi lañu waaye man daa wax ne Cheikh Moustapha moo jëkk a feeñal karaama gi ndax. ak matan ci wàll yépp biir biti xam-xam bi moom waxuma ko dafa jàng li ñu a jàng lépp bokk ci xoolamaa yi doora nag doora teg ca xam sëriñ bi xam ku mat Euh, li ma xam ci moom ci digg ci nekkul sëriñ bi bëriwul waaye xam naa ne euh, euh, na mu xamee sëriñ bi na la ànd woon moom na la doon doxe loolu xam naa ko gannaaw sëriñ bi itam ñëpp noo ci ñëpp teg nañ seen bët kuy gëstu ak mbar rek ngay gis kuy dégg ak mbar rek ngay dégg كون وخم لوخم لازم خم جي سيخ مصطفى اك مرزق لن خم جي موم خم خم بمر سك دين جي مر سك جيكو جوري جي مر سك خل مغري مرفت مر سك دوخين ورفت رفت رفت لولو نيب خم كو خم خم جي موم لولو لا خم جي موم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 waaye li may bind di bind di bind na seen diggante am na bind boobu ci def waaw ngir mënu ma koo muñ ndax bëgg ñu xam euh, seen diggante damay wax ne ñaari gor yu àndoon lañu ñoo xam ne itam ñoo bokk Pastef bokk ndigal bi ñu bokk ndigal ba noppi nag dañ doon ñaari gor yu ànd loolu laa xam jërëjëf guddal na.